jërëjëfati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellusiwaat ak yéen indiwaat leneen lu amit solo jëm ci yaram xam ngeen ne tulu ku na xam nga ko xam naa ko xammee nga ko xammee naa ko muy njariñ wa ca nekk moom rek huile tulu ku na nee naa la huile la woo xam ni lépp lu jëm ci lu bon muy mbiru seytaane ak yeneen yu ni mel huile tulu ku na taxawaay bu am solo la cay taxaw loolee moo waral nag képp koo xam ni daanaka yaa ngi génn di dem fenn te ngay dem wóoluwoo ko daanañ digle nga jël ko dal di ko diw si saw jumbax wala nga daal di ko diw sëw suufu tànk ngir bañ a dëgg lu bon wala sax ma waral seen cabinet bi rax ma soppi ko nag jël ko def ko saabu saabu nag boo ko dee sango daanaka rek lépp lu bon lu ne bu la jegee lu ne rek mën nga cee mucc moo xam yëre wi ngay sol lu bon wala leneen loo xam ne lëkk lu la suñu borom mën na laa dimbali ak na tulukunna na garab la gu yéeme gu doy war woo xam ni secret wa ca nekk mooy jëm dax lépp lu bon loo xam ne day fexeel nit moo tax yow mi seetaan ak déglu wareef la nga am ko mooy iwil na sàmm ko sàmm sa njaboot sàmm sa bopp ndax ci tool yi di ko sangoo nag boobee tamit mooy gënati ndax daf lay aar musal la ci lépp loo xam loo yëg ak loo yëgul 77 244 90 05 ak Biorahma saa su ne rek lu baax rek la ñuy